asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu te di leen nuyo fii ci Bénin Bénin nag ñun murid yi ñu ngi ko gën a xamee ci daaw mi euh, daayira Muxaddamatul Xidma euh, jóge na Touba ci datub euh, le 9 mai ñëw fii ci aéroport Cardinal Bernard ci bene ci heure quatre heures cinquante du matin li ko yëkkati nag mooy liggéey bu am solo boo xam ne daayira bi tàmbali na ko muy sur la trace di Cheikh benn film documentaire bu am solo boo xam ne incha allah xam naa ne ñu ngi leen koy dig da ngeen ko gis bu soob yàlla waaye fii ci benn euh, danañ leen résumer euh, li nga xam ne mooy xew-xew yi nga xam ne am na fii depuis bi ñëwee ba léegi li ñu njëkk def mooy jàngatal leen dëkk bi li nga xam ne moom lañ fi gis ndax gis nañ ne climat bi climat bu sec la boo xam ne dafay xaw a guus xaw a ak bu Gabon mais Gabon gën ko tàng kon climat bu xaw a sec la liñ gis nag ci dëkk bi mooy gis nañ fi ak dal ak set ak organisé ci wàllu commerce ak économique gis nañ ne jigéen ñi ñoom ñoo gën a yor commerce bi ñoo gën a yor économie bi ndax seeni jigéen ñoom seen gis-gis mooy dañoo war di dem ci marché bi di dimbale seeni góor moo tax ci wàllu commerce bi ñoo ko diminé bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina sheytaani alhamdulilahi rabbil alamin dañ sant yàlla bu wér jul ci Seydina Muhammad sangu sang yi sant Sëriñ bu wér di ñaan sa Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér man la Kumba Gueye di soxna ci sëñ Cheikh Saadi bu Cissé mu nekk bene di ko wax réewum dawme ñëwoon fi aventure nag nekk fi ginnaaw yàlla gënt bi nekk fi di liggéey di fi liggéey li Sëriñ Tuubaa ndax ñun ku ne xam nañu rek ñu ngi yëngutu ci métier tailleur yenn saay nag ñu jóg daw ci yeneen dëkk yi dem fa lu mel ne Dubaay dem fa wuti leneen loo xam ne duñ koy dolle ci suñu liggéey yi demit Sénégal ci suñu réew dafa fa jënd ay kiitam di indi ay bagage di indi fii di ko mottali tamit suñu liggéey pour mu gën a dox ci benn côté ndax boo nekkee fen di fa liggéey ngay seet toujours rek ñu gën a doxe ak ñu gën a yëkkati ko nga di ko def la ngay def tamit boo ko dee def fii mën ngaa dem jéggaani aussi digguti feneen di fa indi ndax liggéey bi gën a dox fii nag bi ñu fi nekkee wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu wér-wér ñu ngi fi ñëw en mars ma ànd fi ak sama borom kër ñu ànd di liggéey ma di ko sant bu baax a baax a baax muy sama sang di sama sëriñ di sama wéetal di sama càmmiñ di sama papa moom sax saat bi si sama papa dénkoon ma ko nag te it fitnaalum ma benn yoon ci àll bi ma di ko sant bu wéer a wéer buñ ci jógee nag ñun jigéen ñi am nañ fi daayira daayira bi nag soxna Jaara Buso mi toog muy président bi mën maa topp ci moom waaye dara ñoruñu lu dul liggéeyal suñu borom kër bu ñu paree liggéeyal Sëriñ Tubaa topp leen loolu lañ fi nekk nag duñ ko sant suñu borom ndax ki nga xam ne moo la yëkkati indi may la naataange joo xam ne dangay ànd ak moom di liggéey te du la fitnaal di sa borom kër di ñu jàppale bu baax féexal ñu ba ñu mën a am dal gu ñu liggéey la Sëriñ Tuubaa bu baax baax ci réew mi ñu nekk ba ñëpp ràññee ñu ci kon kooku duñ ko war a sant di sant suñu waajur bu baax baax mi nga xam ne duñoo nàmpatal ci ak murit ñooñu ñu leen ñaanal yàlla xippal leen ca firdaw see gën a kawe ndax euh, waajur dafa foor nàmpatal la ci loo xam ne ak njudit la nga fonk yàlla bu wér te julli ci Seydina Muhammad sopp suñu la woo xam ne tey ku ne bëgg na xafeetu moom muy Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nga xam ne daw ma gii li mu fi def naataange ak xéewal li mu fi xëpp jigéen ñi ko yàlla rek lañ koy seddeel ndax butéelu lakk lañ boobu ñu jëloon sànni ko ci géej gi mu xamoon ne tey nii lay jural mbooleem koo xam ne rek dangay ngay woddoo tey seet nekk ci réewum daw me rek foofu Sëñ Tuubaa toogoon ci place Bayel boobu ñu fekk ko fa jox ko lekk lañ boobu mu ñaanal leen ci la jigéen sëgg siggee ci dëkk bi ba suñ yoon yàlla tey ñoo fi ëpp baat góor yi ñoo fi ëpp lépp kon nag loolu dañu koy seddeel taalibe bu fi ñëw di ko sant yàlla nag bu wér a wér di jullit ci Seydina moom di sant Sëriñ Tuubaa bi ñu yàlla defee ñu ay jullit ba pare def ñu murit dañu sant loolu bu wér a wér daal ñu ngi fii benn amuñu benn problème nag wax dëgg yàlla amuñu benn fitna ñu ngi fekk suñu borom kër jàppale nañ ñu sonal ñu fitna ñu ngi fi daal ci suñu tawféex macha allah. waa jigéen ñi nga xam ne dañoo jóge Sénégal li nga xam ne duñ ko fi faral di yëngatu souvent bu dul métier tailleur dañuy def restauration lu ci bari am nañ ay restaurant ci la ñuy liggéey am na ñoo xam ne tamit dañuy jaayantu dañuy jënd ay marchandises ñëw di jaay même bu ñu deful tailleur def ñu restaurant dañuy kii mais duñuy jaay ci seen dañu ubbi seen i palaat def ci seeni i yére di jaay. mais lu ëpp daal ci nga xam ne daal lañ koy liggéey ci dëkk bi daal affaire yu restaurant la wala mu nekk tailleur loolu ñun loolu lañ fiy def daal te yàlla it ñu ngi suturaal xaj na nag jamono neexul comme na mu neexe woon mais ñu ngi sant yàlla ndax léegi moom fen nag ñu sant yàlla bu wér rek ndax boo yëngu ci ci dara yàlla dina ci suturaal danga koy sant bu wér loolu daal laa xam ne jigéen ñoo koy fay xam nga soxna yi nekk benn ñoom lu ëpp ci seen sol wax la dafa am ay wax nag wax yoo xam ne ay qualité la ba soo demoon Sénégal tey fi mu di ko fa wax duñ naan la mënta nekk ndax am na yoo xam ne super wax lañ koy tuddee brillant yooyu juróom-benn yaar yi mi ngi jar ñaar fukki junni am na ci yoo xam ne nag ñun Sénégalais yi ñun moom la ñu xam ñun loolu liñ koy jëndee fii du seer mooy wax si yem yi nga xam ne dañ koy jëndee piis bi. ñaari junni wala ñaari junni ak ñeenti téeméer am na ci yoo xam ne tamit duñ koy wax super hollandais yooyu tam ñuy jar euh, demi pièce bi dañ koy jaay ay quarante mille trente cinq mille am na ci yoo xam ne day jar soixante mille loolu yoo ëpp ci seen col waaye xam nga sénégalais fu mu yàgg rek dana fa adapté wu loo xam ne dana fa yóbbaale nit ñi ba léegi ñun ñoom suñu col dañ ko bëgg suñu col demi waaye duñ ko bëgg trop ñoo bëgg mbasin bëgg ndoket ba def leen di jar am na ñoo xam ne dañu dem ba Sénégal sax di ko ñëw di ko indi waaw loolu moom yàlla euh, dimbali na ci Sénégal yi ba xam ne dëkk bu ñu nekk rek duñ leen di sopp ndax seen col ndax du ñu wax ne la sénégalaise est trop élégante yàlla yàlla moo ñu may loolu euh, loolu nag duñ koy sant suñu borom ba pare tamit euh, dëkk bi ñu nekk nii wax fa dëgg yàlla dañuy sant yàlla ndax respecté nañu Sénégal ndax Sénégal bu dem ba nga xam ne yow war nañ laa yóbbu fenn rek na nga xoolaat sa bopp mais li nga li yëkkati boo ci du duñ la ñeme te danañ la jox cër loolu moom duñ ko sant suñu borom bu baax a baax réew mi ñu nekk yi fonk nañu fonk koo xam ne wax dëgg yàlla dañ ko sant yàlla bu wér loolu nag moom te it eh, li ëpp ci suñu liggéey daanaka étranger ñoo tax nag. lu mel na Zaïre Brazzaville Gabon Cameroun ñooñu ñooñu bàyyi daanaka ci dëkk bi parce que ñooñu ñu li ñu utiliser ñi ñuy demee Sénégal di ko fa jëndi noonu la ñu ñëw fi benn di ko fi jënd waaw loolu moo tax daanaka ñun ñu nekk ci dëkk bi mais bu fekkee ne waa réew ñoom seen sol uh, wax si yooyu lu muy cher cher ñëw bi ñu koy ñëw du passé ñaar téeméer ndax mbumba lay doon day mel na genre bolok nii rek bu gàtt boo xam ne du am brodeur du am dara ñoom loolu lañ koy ñëw parce que loolu mu ñu mel ci grand boobu ñoom noonu la ñu mel ci col googu loolu moo tax ñu étranger yi ñoo ñu fi bàyyi ginnaaw yàlla ak yonent bi daal euh, loolu moo ñu fi bàyyi vraiment. Hmm? kàddu mujj gi nag mooy euh, may rafetlu rek seen jóg bi seen bi ak suñu mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo jóge Sénégal ba ñëw ñëw fii ngir yàlla ak yonent ak jëmmi Sëriñ Tuubaa ñun daal amuñu seen fay ndax lii lu rëy rëy rëy la ci ñun ñu ñaan nag seen yoon yii yàlla ci yàlla def yiw ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ngeen ñëw ñu ngeen ñëwee ci jàmm ngeen delluwaat ci jàmm fekk njaboot gi ci jàmm ñun daal sant nañ leen bu wér a wér sant nañ leen sant bu wér julli ci Seydina Muhammad sant sang yi sant suñuy wéyjur sant Serigne Touba bu wér ñaan suñu xalif bi rek yàlla fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg lool mbàkke te wér loolu daal mooy suñu kàddu yu mujj jërëjëf wasalaam salaamaaleykum wa rahmatullah allahu barakatuh barke Seexul Xadim barke soxna Jaara suma turando maa ngi ziar ñëpp balu ak ñëpp di ñaan yàlla suñu borom bi yàlla nañu boole jéggal ñu ñëpp yàlla defal ñu taw ak tayseer man nag soxna maam Jaara Seck laa tudd di soxna ci soxna Serigne Ousmane Thiam ñëw Cotonou depuis 1994 nekkoon Sénégal doon jëwriñu daayira aspiculteurs yi jokk woon ci asaabul janna bu Thiès Serigne Saliou Touré di sama jëwriñ ak Modou Mbaye Samb ma jot faa liggéeyal Serigne Touba lu tuuti nag ba jot yébbal fa Serigne Saliou Mbacké addiyee en 94 9 avril 94 laata may ñëw Cotonou yàlla dogal ma ñëw Cotonou léegi tamit wax dëgg yàlla macha allah maa ngi sant Serigne Touba bu wér ndax dama jiite woon asbi sutóori ba léegi ma jiite mooy kon dama te yoroon béyit ba léegi ma yor téere bi lépp di ko sant Seexul Xaddim bu wér nag di ko sant sama ñaari waajur ndax man sama wajuru góor alaaji ibrahima sekk la tudd doonoon taal moo moodu sekk mooy sama maam di taalibe ci sëñ seex ta euh, seex maam anta mbàkke mu daaru salaam kon man sama bàyyi waa daaru salaam bi ma ñëwee Cotonou ak léegi nag wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla ndax mu ñëwee ñoom ñi ñëpp ñoo ma dalal sama nijaay mi fi laa ko fekk ku mbëggee sama adjoint fi laa ko fekk ñu dalal ma ma gën fee tuuti lool nag waaye liñ li sëñ Tuubaa mooy tànn ñooñam moo tànn njiit man su may liggéeyal sëñ Tuubaa ma ciy liggéey lu mu néew néew néew dama koy xeet ndax dama koy sant sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sant nag waa Kutun yëpp sant ko moom mii ndax dañ maa jiital te fakkataluñu loolu la yàlla def waaw loolu mooy présentation bi xanaa di ay jàmbaar lool jàmbaar lool wax dëgg yàlla tey day jour ouvrable moo tax ñu woo leen daanaka ñu bari teewuñu waaye dañuy jàpp ni ñun ñu teew rek teewal nañ ñëpp ndax wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ci yoon yoonu Porte-Noire bi kenn mënu leen ci nga xam naan saa góor ñi defee benn bu ñu mënul ñaa bu ñu mënul benn boobu dinañ jëf xaaj ndax jéem a topp ci ñoom te yàlla ak seen jëmm yi la wax dëgg yàlla ndax bu jub see dañuy mel ni ñoom ñëpp loolu rek mooy seen soxla mooy seen yitte mooy seen moom lañuy waxee moom la ñuy doxee moom mooy seen jëmukaay ba tey it loolu ma leen ni dinaa leen ci sant mais ñu koy sant Sëñ Tuubaa rek ndax li ma leen wax Sëñ Tuubaa bëgg koo liggéeyal ak mu liggéey loolu du benn ndax sëñ bi dañoo war a xam ci moom ni ku bokkul ci ay mbiram sax te bëgg cee nekk moom bu lay seppi moo lay seppil boppam kon nañuy sant yàlla di ko ñaan yàlla nañu boole ci ñi muy liggéeyloo waaye jigéen ñi soxna yi wax dëgg yàlla macha allah ku ci mel ni moom mi soxna Marie Diouf soxna Fatou Mbaye ma nga Sénégal ak ñeneen ñi topp seen ginnaaw xale yu jigéen man tegatuma cin moom mooy tegatul cin ne jigéen ñi ñooy togg lépp ñooy togg ba mu egg ñu yàq ni ñu ngi leen séddale ñu ay jàmbaar loolu wax dëgg yàlla macha allah. aw man mi restauration restaurant sama biir sama buntu kër may liggéey liggéey restaurant. ñenn ñi di liggéey tailleur ñi fi liggéey restaurant sax daanaka ci jigéen ñoo ëpp ci jigéen ñi fi liggéey tailleur jigéen ñi fi liggéey tailleur daanaka boo ci génnee moom ñi ngi ci des ay góor lañ ñu ciy jàmbaar loolu nag wax dëgg yàlla mais restaurant restaurant euh, kii moom wax dëgg yàlla ñu bëri si ñun moom lañ fiy liggéey wax dëgg yàlla waaw ah. plat dëkk bi am nañ ay plat yu macha allah dinañ togg lu mel ne asraku dinañ togg pat amiwo dinañ togg jeewo dinañ togg maanaam daal palaay dëkk bi lépp nag à base de maïs lay doon wala iñam maïs ñambi wala iñam iñam tamit genre tubécule dafa mel ni ñambi dañ koy dëbb dañ koy dagg togg ko ba mu yegg ñu dëbb ko ba mu doon bul daal ñu teg ko toggal ko soosu gerte maafe soosu maafe lañ koy booleel d'habitude waaw man de am na ci lu ma mën wax dëgg yàlla maa ngi koy sant yàlla bu baax <laughs> réew mi la ñoom lan mooy ëpp ci seen liggéey mooy commerce li ëpp ci seen liggéey mooy commerce boo duggoon ci marché bi tey da ngay demee Sénégal ni sëñ bi li ñaata la danga naan soxna si li ñaata la waaw boo demoon senegal tey marché boo taxaw da naan sëñ bi ñaata ngay jaayee li mais fii boo fa duggoon ci marché tey booy laaj da naan soxna si li ñaata la waaw ndax li ci ëpp ci seen liggéey wax dëgg yàlla commerce la commerce lañ bëgg comme niñ ko waxee léegi nii bañ joxee sëñ bi libin la tëluñu libin bi bi ko s bi ko taa euh, tubaab bi sànni ci géej bi soxna yi ñoo ko far bu ñëwee ñu jox leen ko bi ñu ñëwee mu nuyu ñu nuyu ko tolloo juróom-ñaari soxna kenn ku nekk yor ci benn ñëw jox ko ko mu juróom mu <laughs> maanaam daal dama dugg ci détail parce que sama xam-xam bariwul waaw mais daal nii la fi demee xam naa ni daal seen mbir li ci ëpp commerce la waaw wax dëgg yàlla jërëgéen jëf bon li may tàggoon nag mooy di leen sant bu baax di sant Seexul Xaddim suñu sang bi di ñaan suñu Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér nit ngeen yàgg fi lool te yàgg dox li ngeen di dox ndax lu am solo la yàlla na leen yàlla gën a dooleel gën leen a kàttanal ba li ngeen di di liggéey ci yoonu Serigne Touba ba ngeen mën ko matale ci barke Seexu Xadim sëñ Seexu naa ñu lay sant bu baax di sant sëñ Modou ndax li lépp moom la ndax depuis 2000 ba ñu commencé xew-xew bi ma nëgën ñu nag moom day ñëw mbaamu yónnee benn yoon la ko sëñ Modou Moussa tardé Mbàkke moom it yàlla na ko yàlla gën a dooleel mu di ci jàpp di ci wax lu rafet di ko ci def ba mu egsi fii kon jërëjëf boo nemee nga santal ñu ko bu baax nee ko sant nañ ko gërëm nañ ko. di ko ñaanal bu baax nag di ñaan yàlla nañu yàlla wanale waat ak moom balaa yàgg wax dëgg yàlla saa buñ lay cëpp ca këram ga dañuy bég lool dañuy bég lool bu ñuy dem sax dañuy wëndeelu Tuuba ba mu daj këram dañuy mujjee ndax ñu bàyyi ñu génn Mbàkke sant nañ ko lool nag wax dëgg yàlla Mbàkke baal sant nañ ko lool nga santal ñu ko bu baax a baax. waaw asalaamaaleykum euh, maam Fatou Seck laa tudd sama yaay waa Thiès la sama papa waa Ndar la mu nekk fii ak ñoom. sama yaay nag sama papa dañoo génn àddina fii nag man maa fi nekk ndax fii leen leen denc tax sama papa bi mu gaañoo bi ñu ko fay jël see dafa ne déedéet fi suufam nekk rek fa lañ koy denc kon nag fii lañ ko denc fii ak paa samay mag ak samay rakk yëpp ngi Sénégal man maa fi nekk maa fi toog waaw man a yàgg nañ fi nag ndax fii laa fekk sama yaay ak sama papa boobu tam maa ngi woon Sénégal après bi sama papa gaañoo ma nekk Abidjan après laa ñëw fii bi ma ñëwee fii a yàgg na depuis 1990 je suis là euh, damay togg damay togg commande damaa am boutique gu aar damay def affaire u aar artisanal waaw ay pochet ay yëfu yi ñuy def yëpp am ay pochette ay der ay collier ay yëfu jigéen ay décoration kër tubaab yi ak yi nekk France waaw waaw ñoom la ñuy waaw xam nga àdduna bi ne fi ne moom daa tas ndax corona beeg yëf yi doxoon na ndax ku ne yaa ngi ciy jël sa wërsëg waaye bi corona bi ñëwee ba tey daal yëf yi daa changé bu baax ndax yëf yi daa xaw a kii rek tuuti tuuti waaye nag ñu ngi sant yàlla. am jom euh, jigéen yi nekk fi am na nañu jom lool ndax wax dëgg yàlla ñépp ngi liggéey ñi ngi yëngatu si ay togg ñi ngi yëngatu si ay jaay ñi ngi yëngatu si ay ñaw am nañu jom moom wax dëgg yàlla am na nañu jom lool. waaw barab bi sëriñ bi jaaroon damaa mas a sama premier jëkkër Moustapha Faye bu ba maku euh, nu see ñaari at awma doom léegi ma séeg sama deuxième jëkkër tamit ñu def ay at yooyu aw ma doom ma dem si clinique bi nekk euh, sama wetu mère Aïda danañ fa benn bis mu may seet docteur bi daan ne ma yow doo am doom ma ne ko ah mu ne ma waaw ma doom mu ne ah, ma ñëw di jooy ndeysaan mère Aïda gi defe naa ngeen turam mu ne tax may jooy ma ne ko ah mais docteur bi kat nee na du ma am doom daal du ma def yàlla mun ne ma moom moom day yàlla ba ngeen dem am doom ma ne ko loolu da la wax. yàlla def en 2004 ñu daal di dem Porto Novo bi ñu demee Porto Novo mag Binta Kare benn xale bu jigéen bi fi nekkoon moom it amul woon doom min ma mee na ma boo demee Porto Novo boo jàppee ba set boo demee si bëru si Tuubaa nga ñaan ko fa ñu sëgg nii si suuf di ko ñaan maag Binta naan ah ma ne ko seen Tuubaa te maa jàppale wax a ñaana ñaana ñaana Omarou juuf mi tey romb nii naan nu ah amin yaa rabbi amin amin amin ma jóge fa 2004 2005 may dem ba ma ko nekk maa ngi ëmb ma yëguma ko ma demee Bamako di jënd bagage ma ne man damaa siburu man naan ay garab garab bu ne naan naa ko garab bu ne buru garabu jinne te ma ba maa ngi gis pot bi ma ñëwee ma ne ah waa man sama siburu bi moom ba jàmm na ma daa dem hôpital ci clinique euh, benn docteur mu daal ne ma da ngaa ma ne ko ëmb mu ne ma ko damaa gis pot mu ne ma si tu es enceinte ma ko waa ñaari weer demaat troisième fois mu ne ma sa ëmb bi dina def onze mois ou douze mois mais da ëmb ma ne ko docteur man ëmb ma. munuma boo ëmbul ma damay teg sama ciseau nu continue noonu continue noonu ba mu def six mois mu defal ma échographie mu defal échographie mu ne ma yaa gis échographie ma ne ko ah, ma ci ma Adja Mara ñu tudd ko sama yaay ñu def 2008 mu ëmb seen fàllu seen fàllu bi ma koy ëmb boobu tam maa ngi dem Sénégal ma ngi koy ëmb te yëguma ko moom it coono bee garab bu ne naan naa ko ma ma ne ko waa man mii bi ma yeggee Dakar lan ma ne da ngaa muy sen fàllu mii tey incha allah alhamdulilah sant waaw fa laa ko ñaane woon ñaanal naa fa it oto it ndax damaa dem sama benn càmmi bu doon romb ma ne ko mu dugal ma si oto bi bi ma wàccee ma ne ko ah waa yow ne ma wàcceel sama jabar ñëw na ma ne ko damay wàcc ma waa ma ma daal ne ah seen Touba gis nga ma fi ñëw yaa naa fi bi si toppa bi di def kii yóbbu naa fa sama oto yooyu moom mun naa sant yàlla seen si seen Touba loolu defoon na ma ko may na ma ab seen fàllu seen fàllu moom it lu tax tudd ko seen fàllu bi ma guddi gi ma sama biir bi ne ba ma dem hôpital ndax man damaa dogal ñaar doom yi dañ maa opéré ndekete bi mu tiite sama borom bi mu tiite ñi ma yóbbu dañoo fàtte tëj robinet yi ba bët sët ñu daal nuy wane ne waaye tëju leen seen robinet yi ndox baa ngi ba ne ko yëpp sotti mu daa di daw waa ci suba si si fajar ki ma wasi ne ba pare bi mu ñëw mu fekk kër gaa ngi fees deel ma ne ko waa lii lan la mu ne ma xéewul la borom kër gi dama c'est quoi ma ne ko si nous c'est mu judd rek mu ma seen farlu rek parce que moo nekk nii <laughs> waaw. waaw ñi waaw danoo teraloon sëriñ bi wax dëgg yàlla defar ko lu baax bay ko paafe moo tax fii moom jigéen loo fi yëngatu rek yàlla da lay jàppale mooy waa réew mi jigéen sénégalais fi nekk lu la loo jàpp rek seen tubaab da si jàppale wax dëgg yàlla waaw. ah waaw di leen sant di leen gërëm kontaan naa trop wax dëgg yàlla ah, man murit laa nag waaye nag wax dëgg yàlla di sant di gërëm seen Tuubaa moom ku ne xam na li mu def ndax ay œuvre moom ku ko bëgg wax moom fii ne fii ba suba kenn du pare di ñaan rek nag yàlla teg nu si yoonu jàmm teg nu wax dëgg yàlla euh, seen Tuubaa moom li mu def moom vraiment xale yi sax ñoom bu ñu koy damuy wax sax te xamuñu ko ndax dañuy xool si YouTube bi bëgg ko di wax ay waxam di expliquer di nettali kon kooku moom kenn nit rek la seen Tuubaa moom kenn nit la waaw dëgg yàlla. ndax ay œuvre moom kenn mënu koo mun ko mun nu koo wax daal il a fait beaucoup de choses vraiment merci beaucoup jërëjëf kontaan naa merci beaucoup waaw oto bi moom ndax oto bi daa am problème kon ngeen gis ko ñoom dañuy ànd ndax ñoom bi ma leen ko waxee ñu naan moom je vais aller voir les petits fils de je vais aller voir maman ndax moom loo wax mu ne Sène Fallou même barke dem bi mu feebar sa nekk hôpital docteur bi ne ma c'est quoi ma ne ko sax mu ne ma il faut lui dire que mooy si Sène Fallou je vais <laughs> moom école ba da koy tiitoon wax mu ne mooy si seen palon peut rien me kon nag alhamdulilah sant yàlla sant yàlla wax dëgg yàlla. mbooloo mi tey nag euh, waa daayira Muxaddamatul Xidma ñi nga xam ne ñoo yor liggéeyu jumaa ji sëñ bi dénk leen ko ñoo ñëw fii tey Cotonou parce que dafa am benn liggéey boo xam ne dañ ko commencé woon. mooy topp yoonu géej bi géej gi fi sëñ Touba jaar yëpp ñu jaar fa def fa ay reportage def fa xam li xew ci dëkk ba parce que li gën am importance ñëw ñu rek ni dañoo bëgg a xam fi sëñ Touba jaar dañoo ñëw it xam dëkk bi xam boroom dëkk bi xam li xew ci dëkk bi loolu am importance la mooy c'est scientifique liggéey bu scientifique lañ ñëw def si tey nag yàlla def na ñun tey ku fi julli rek fay booy boo nga ñaan jàng ay xasaayit jagleel ko sëñ bi parce que tey li fi xew ci diggante quinze heures midi ba dix huit heures man ci li ma ko jàppee sëñ bee nekkoon suñu kanam bunt bu ñu fëgg mu ubbeeku bunt bu ñu fëgg mu ubbeeku ay reportage jaar nañ fi de man dirigé naa fi reportage yu bari parce que comme yàlla def na xaw naa nekk consul bi parce que ñu fi ñëw dañuy jaar ci man mais li ñu am tey man musuma ko gis musuma ko gis loolu nag ñoom dañoo ñëw ànd ak sëñ Touba rek fu ñu nii rek foofu ubbeeku moo tax tey def nañ fi reportage boo xam ni macha allah ñu koy sant sëriñ bi di leen ko sant ñoom ñi xam ni ay professionnel lañu parce que professionnalisme laa ci gis ay scientifique sax waxuma professionnalisme tuuti na ay scientifique ñoo nekkoon sama kanam di poser question yoo xam ne fañ fañ koy poser lañ ko war a poser di recueillir li nga xam ne moom la ñu war a recueillir si l'image loolu nag daf ñoo war a yee ci Porto Novo xam ni Porto Novo de du mbiru kenn du mbiru saw consul du mbiru kenn du mbiru ñoom mbiru sëñ Touba la moo ko moom parce que fii de ba mu fay ñëw wéetoon na fi lool moom kenn la fi nekkoon kon lu ñu mënti wax rek pour yoonu géej gi moom moo jiitu lépp te mooy jiitu lépp ba faw te moo lal tamit yoon wi parce que bi sëñ bi naa tubaab bi defoon nañu dañ maa capturé mais mois je suis le captif de Dieu ñoom jàppuñu ma mais man yàlla laa àndal ak yonent bi defoon nañu dañ maa jàpp mais xamuñu ni man jàppuñu ma bu ko sëñ Tuubaa di wax ak ba sëñ Tuubaa di wax ni ñu ñu ñu ñu ñu def màggal gi départ ba parce que xamoon na ni résultat bi mooy di kon tey dañ ce war a sant yàlla ñu ñëw seet si leen fa saafonteeg yéen yoonu géej gee tax ñu jóg waaye nag mënuñoo dem te jaaruñu xool ndaw ñi xale yi nga xam ne ak mag dañuy liggéey ci yoon wi di liggéey ci sëñ Touba dafa mënu ñu ni ma mënuñoo dem te ñëw ñu jaar seet si leen mooy seen tànk yi tey ñu ñëw depuis seize heures yéen a ngi toog leen xaar Sëñ Tuubaa moo ko jar moo tax ñu ñëw léegi ma ma bàyyi leen ak sëñ bi parce que sëñ Modou muy suñu wasila di suñu bunt fii ci porte Novo ndax li ko Porto Novo ñor tax na mu yónni dooma mu ñëw gàttandu si leen mat ku sëkk parce gis nañ li mu def euh, port Novo mat na ko sëkk ñu ko ciy sant ñi ko ci gërëm kon ñu bàyyi leen ak moom mu présenté leen ñi nga xam ne ñoo ñëw pour euh, yoonu géej sëñ bi aouzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci ab yonenteem sallallahu alayhi wa sant cheikhul xaddim te ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu boroom yàggal ko fi lool naal yi mu naalal maamam ki tedd gi cheikhul xaddim suñu borom kàttanal ko ba mu eggale ko barkeb sëriñ bi xanaa damay ubbil sama sang su baax si rek waaye kàddu gi moom sax matiwu ko ndax soo wax na lépp te waaye comme dañ fee ñëwee ndigal rek. ak it sëriñ Modou mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad kóllëre gum am ak dëkk bi ak mbokki bi yi fi ne ak fonk gum leen fonk lool ak yëg gum leen yëgit ak fu leen teg fu sori lool moo tax xëy na bi liggéey bi biñ ko sumbee ngir euh, feeñal jeexitali sëriñ bi ci dëkk bi toppaat toppaat euh, jeexitali sëriñ bi mu mu mu yebaloon ci suñu jëmm yu ñàkk solo yi ngir ñu teewal ko fi rek ngir feddali kóllëre googu ak it uh, dalal suñu mbokk yu baax yi ñu àndal nga xamee ni seenub liggéey weesuwul lu dul uh, wane njàngaleem sëriñ bi uh, yëkkati ko dooleel ko ba ñëpp xam fi sëriñ bi newoon ak ci ak ci ci fi mu jaar ak tukki bi solo gi mu am am am gi mu am solo moo tax ñoom ñëw séq ay jéego jóge ba senegal ngir ñëw topp jeexitalu sëriñ bi ci dëkk bi Euh, di ñëw ci turu daairatu muxaddamatul xidma nga xamee ne ñoom la sëriñ bi dénk liggéeyu juma jumaa ji ak lépp lu ci aju ñu ci def ay liggéey yu am am solo yoo xamee ne euh, njëriñal taaliba yëpp ngi ci njariñal lislaam yi ngi ci euh, loolu tax comme sëñ Abdul Ahad Bousso feggoog sëriñ Abdul Xaadir Bousso sëñ Abdul Xaadir sëñ Abdul Ahad mi nga xam moo yor lépp lu jëm ci wàllu culturel ak euh, lépp lu jëm ci lu ci aju rek ci ci ci daayiratu muxaddamatu xidma moom lañ ko féetale mu ànd ak euh, sëriñ Abdul Xaadir Bousso yi nga xam ne moo jor jor ci lépp lu jëm ci wàllu communication it ngir ñëw euh, gëstu ci jaar gi fi sëriñ bi jaar ak jeexit yi fi am mm, kon looloo newoon seen i tànk waaye xam nañ ni buñ ñëwee ci réew mi fekk nañ fi ay mbokki taalibe yoo xamee ni seen taxawaay ci dëkk bi ak seenu njàmbaar ak xenj gu ñu xenj ci mbirum sëriñ bi mënta ñàkk ngir ñu gisee ngir ñu gisee ak yéen yéen waxtaan ak yéen it ki seen liggéey ci ci fànn yëpp looloo tax kon ñu ñëw fi ngir eh, seet si leen waxtaan ak yéen. Euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax seen teewaay bi Cotonou ndax euh, balaa ngeen ñëw fi Cotonou. daa fekk euh, communauté mouride yi fi nekk surtout ndaw yi euh, dañu façon a yéene ne comme euh, feetu chrétien yi ñu ne 31 décembre wala 24 décembre xale yi dañu ko doon dem féete ko di di fo ñoom ñu ne léegi ñun loolu ñu ko def foo dañ koy def dañ koy euh, liggéeyal sëriñ ah, ci ñu xalaat euh, ñu ne nañu maanaam suñu kilifa bi muy Cheikh Ahmadou Bam euh, liggéey bu mu def ah, ba yàlla wuyu ko si liggéey boobu Porto Novo bind na ci loo xam ne macha allah fierté la si ñu nekk fii Porto Novo te fierte la surtout jeunes yi fi nekk te ay murit lañ moo tax ñuy def ay édition boole ci ah, ñoom Cheikh Cissé magu magu communauté bi murit ñoom Amadou Diouf ñoom euh, consul honoraire suñu consul honoraire ñu ci taxaw bu baax a baax a baax euh, ba ñu def ba dix-neuf édition dix-neuf édition yooyu yëpp euh, amuñu woon doole bu bu bu matoon euh, moo tax seen teewaay bi ñëw fi dafa di xam ne daanaka <laughs> xam nga Serigne Touba moom liggéeyam boo boo ci commencé rek moo koy eggale eh, gis nga daan xaar eh, di di koy sàkku di koy ñaan eh, si teewaay sëriñ Moodu moom yabal na yabal na doomam macha allah si teewaayam tamit si ndigal xalif général de mourides Ah, tey bu ñu gisee xarit général des mourides ñu yónni fii fii Porto Novo Cotonou ñu ne woon Dahomey foo dégg Dahomey rek sa xel day dem si Cheikh Amadou Bamba ndax euh, nee na bu fi bu mu fi eggeelee yàlla nangul koy lépp lu mu daan ñaan kon Porto Novo la boo xam ne dafa am solo lool lool lool ah, ba tax na aussi euh, bu ngi daan gis ñuy màggal euh, Grand Bassam Conakry dem ba Gabon ñu ne ñun tamit fii incha allah ba bés dina ñëw euh, suñu ñaan si loolu dina yàlla dina ko nangu moo tax euh, sëriñ bi Porto Novo bu ñu ko commencé di def ziyaara bi dafa mel ni ñëpp dañu mànkoo di koy def muy am dayoo boo xam ne ñun dañ ci dañ ci kontaanoon ndax euh, dafay fekk ñu bari dañu yaakaar ne woon euh, li ñu daan doxal bokkul ak diine ba tax na am na ñoo xam ne sax dañuy dem ci télévision bi di fa wax loo xam ne doon na waar lool euh, ñun jóg nañu liggéey loolu saafara loolu ba na léegi nit xam nañu Serigne Touba Xaadimu Rasuulu la xam nga ku ku ku dëgg lan mooy xaadimu rasul ngay xam ni ku ne tamit lépp lépp li ma am ginnaaw yonent bi sababu yonent bi moo tax ma am ko mu ne moom yonent bi moo nekk ci kawam moom daf ko dafa daf ko nekk ndaw xam nga kooku jeexal na donc euh, benn waaye bu ñu xamee loolu la ñu surtout autorité yi la autorisé fii pour ñu am euh, kayit boo xam ne at bu nekk dañu koy def ak sécurité bu mat sëkk mais mënul am dayoo boo xam ne ñun loolu la ñu mënu am mënul am dayoo boo xam ne euh, euh, li ñuy sént parce que dañ ko sént dayoo boobu ndax euh, sëriñ bi ci boppam boo gisee bind bi si daw mais sa yaram sax day daw moo tax mu ngi leen di gërëm bu baax seen ñëw bi ñu am yaakaar lool si yéen ndax euh, xam nañu Touba bu duggalee loxoom ah autorités yi fa nekk suñu kilifa diine bi euh, xalif général des Mourides ñu lëkkaloo ak euh, waa autorités yi fi nekk bu soobee yàlla incha allah relation diggante Mouride yi ak jullit yi fi nekk ak julliti sous région yëpp parce que bu ko tàmbalee fii sous région yëpp fii la ñuy fii la ñuy ñëw ngir loolu ndax Sénégal modèle la Cheikh Ahmadou Bamba référence la ba ilaa yawmi diin incha allah maa ngi leen di gërëm bu baax. man li may tëjee daal mooy gërëm leen parce que ñun ñëpp ay murid lañu Cheikh Ahmadou Bamba lu mu woote ñëpp ko moom xam nga dañuy ne xaadiriya tijaniya boobu tuur nit la jël mais fii dafa woote laax maanaam eh, loolu maa ñëpp ñëpp ay murid lañu. kon euh, lu ñuy gis euh, ci mouridisme discipline la ñu gis maanaam dëggu euh, engagement pas-pas la ñu ci gis te loolu la jullit mën a mën a mel te le mouridisme lu mu enseigné aussi c'est à aux antipodes comment dirais-je de du terrorisme islamique parce que pour combattre la terrorisme islamique il faut aller si li ñuy enseigné Cheikh Ahmadou Bamba lu seen melokaan ak lu ñu jàngal nga dem si tijaaniya yi nga dem Sénégal macha allah référence la si wàllu boobu te gis nga <laughs> boo demee ci tijaani yi ak Cheikh Ahmadou ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay te lu ñuy jàngalee macha allah bu ñu koy jàngalee àddina dina am l'islam boo xam ne l'islam bu dal la l'islam de développement la l'islam bëggante la l'islam boo xam ne l'islam de développement lay doon moo tax euh, on est très fier ñu nekk ci biti dañu dañu am fierté di ci di ci waxtaan di ci tëjji bopp nit ñi parce que ñu bare bare bare man ni tëjji naa seen bopp ci loo xam ne erreur la tëjji naa bopp euh, benn Camerounais boo xam ne bu ma ko waxee Cheikh Amadou Bamba bu pare dafa jooy parce que moom kaddu mu mu daan wax ci sëriñ bi di koy wax ci sëriñ bi bind naa ko sama téere du koy wax ci sëriñ bi bu ma waxtaan ak moom mu expliqué ko dama toog dafa toog dafa toog dafa jooy jéggulu mu ne ñàkk xam la voilà kon euh, vraiment c'est il faut être fier parce que liggéey bu ngeen di def nii liggéey yonent bi liggéey yàlla la te liggéey africain yëpp la quoi yàlla na yàlla mayu ci ndam euh, man quatre vingt sept laa fi ñëw euh, mais dem naa toog aussi Accra Ghana def naa foofu douze ans ma ngi doon jàng si institute of journalism and communication xam nga anglais <laughs> dama parfaire sama anglais léegi ma delloo si fi bu ma takkee soxna laa fi ñëw mais ma ngi waaj a ñibbi léegi fu mu ne nii parce que waxtu bi jot na ah man consultant la écrivain consultant ma ngi liggéey institution euh, CEDEAO UMOA gouvernement yi sax dañ may sollicité ma leen di def ay ay projet voilà mais léegi dama bëgg a ñibbi pour dem liggéey pour sama réew mi <laughs> mais voilà mais li may def ni aussi liggéey la parce que liggéey sëriñ bi liggéey sa bopp la voilà parce que liggéey sëriñ bi moom liggéeyal na boppam ba pare mais da dañu dañuy sababu rek mu mottali dañuy sababu rek dañuy sababu mais sëriñ bi moo koy mottali te incha allah dina mottali li ñu yéene incha allah waaw man Lamine Cissé laa tudd Lamine Cissé man waa Ziguinchor la waa Jigéen la. waaw kontaan naa trop. jërëjëf. di bindkat bi. waaw euh, bindkat la euh, bind naa benn téere bu ñuy ne les effets des causes cachées damay ñëw Sénégal pour la grande promotion génne naa ko fii Togo tout ça là mais damay ñëw Sénégal pour une grande édition parce que euh, juróom ñetti at la maa nekk laa nekk di koy bind ñaari tom la tom bu nekk c'est plus de quatre cent pages œuvre bu rëy la quoi waaw allah maa ngi ñëw <laughs> jërëjëf jëf merci beaucoup bisimilah asalaamaaleykum waaw man Cheikh Sadibou Makalou Cissé laa tudd euh, ancien gendarme la bi ma génnee gendarmerie en quatre-vingt-neuf laa génn à l'aventure jaar Lomé en quatre-vingt-dix en quatre-vingt-onze laa ñëw fii Cotonou ça veut dire que ba léegi maa ngi fii waaw euh, sama papa origine Mali la mais dañoo yàgg Sénégal ba jaxasoo ak sénégalais finalement naturalisé sénégalais ñun aussi on est des sénégalais comme pour le Sénégal euh, ci tarixa murit bi ma bokk alaaj maam Cerno Mbàkke mooy sama wasila waaw su ko defee loolu laa amoon ci présentation waaw dëkk boobu it wax dëgg yàlla boo ko seetloo jigéen ñi ñoo yor koom bi jigéen ñi daanaka ñoo yor kàddu bi foofu sant yéen ñi rek te xam ne liggéey bi ngeen nekk wax dëgg yàlla liggéey bu bu bu bu sell la bu honorable la waaye di leen ñaanal aussi suñu borom sàmm leen eh, ba ngeen dellu ak jàmm ak salaam bàyyi jàmm gannaaw fekk jàmm fa ngeen di dellu ci seeni kër yal na suñu borom nangu lépp lu ngeen koy liggéeyal nii parce que lii man dama koy assimiler ak jàmm yàlla macha allah. Eh, eh, MKTV incha allah ànd na ko ak yéen fii ci Bénin ñi ngi sant it mboolem délégation yi nga xam ne ñoom lañu àndal. muy le consul ak euh, ñi nga xam ne ñoom la ñu maire booleel kon mbokk yi ñuy seetaan liggéey bi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma def si na ko fii ci Bénin liggéey la bu am solo boo xam ne ñu ngi leen koy dig incha allah waaye euh, xew-xew yi nga xam ne am na fii euh, incha allah danañ leen ko wan danañ leen ko leeral ngir ngeen seetaan ko yéen auditeurs yi nga xam ne yéenay seetaan MKTV kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen dig daje ci beneen dëkk bi nga xam ne ñu ngi fay demaat muy beneen réew incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu